ñu ngi noonu fii la ñoo weccante scan eight ñoom ñoo jiitu dafa mel ni daal affaire yi du yomb waaye daal mu ngi noonu scan eight dem nañ ndax kooku dinañ ko jot farafeñe mu ngi noonu ak ñeneen ñi laatri kunda boobu ñoom ñu ngi soog a jël baatin bi acca o oh, bi moom nasir ma ne ko nasir from base bi moom doxul scan eight moom dem nañ scan eight dem nañ scan en dem nañ waaye gaa yi ngi leen di jóge oh na dana maintain pace this is oh, gonna be a very tight competition here would she able to can she maintain the pace the momentum is another thing we are now they are now getting close to the final round of this competition but the one girl in blue closely chasing her, but scan eight on the lead, and yes, it looks like she's gonna maintain the pace. The momentum, she is not relenting on her quest to finish as the winner. She looks back, but yes, look at this. Yes, well done and congratulations. She have done it. And yes, it has been winner. Closely followed by I cannot identify that school. Mahat, Farafenya in third, Jamisa in fourth. Well done and. Uh, Yes, all of the, and I can sixth or fifth position. Well done all of the girls. affaire yi métti na lool waaye mën leen ba jeexal ko. jàmbaar la ñoom ñëpp. Scandé ñoom it jàpp si jàpp ay jàmbaar lañ euh, uh, seen gars yi ndax ki nga xam ne moo stade muy ku door affaire yi ak ki ci topp ki ci topp ba ci ñeenteelu euh, dawkat bi ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ looloo tax ñu yegg si fii. waaw noonu la rek lii nag moom train dëgg la laaj préparation dëgg la laaj pour ngeen foom eh, better team wala ngeen foom team boo xam ne da ngeen mën a compete mooy noonu am solo mu ngi noonu ñoom ñëpp ñu ngi leen di photo ñoom ñi nga xam ne ñooy team bi jël eh, force ah, ñu ngi leen di nitaal ñoom ñëpp a kontaan fi mu nii ndax nag ñu yàgg liggéey la lu ñu yàgg a waaj waaye ñi nga xam ne ñoo jël second third fourth fifth ñoom it ay jàmbaar lañ ay ndaanaan lañu kon Euh, ndax daw ba mu yegg nii euh, du lu yomb wax naa la ne ku yegg si fii rek jàmbaar nga ñu ñëw ba yegg si final bi yëpp ay jàmbaar lañ ay naanaan lañ euh, parce que am na ñoo xamee ni bëggoon nañoo yegg si fii mënuñu